ci tuuti kon ci Mamadou Binta bintaloo moom ah kon ci euh, néegu bi nga xam ne mooy néegu waajuram muy jigéen mooy néeg bi am moom la bokk muy néegu seey waaw euh, Mamadou Binta moomu euh, ni ma ko limee rek moo de ko woon soxna si ñuy wax yàlla faati daam am ci mbargo yàlla sàmba yàlla moor yàlla mbaar yàlla baraan yàlla maam saar yàlla moo jur kumba gàll ñooy njaboot Mamadou Binta Lo mel na ni kon ci néegu waajuró muy Binta Fall moomu li ma ko waxaan léegi ko ñu tàmbaliwaat ko waaye nag loolu jàlloon na Binta Fall moomu euh, moom it dafa demaat euh, ñoom rek am fa Tamsir Matar Binta ak Maam Sarr Binta euh, mel na Maam Sarr Binta moo jur soxna Faati Fall mu ñëwaat kër maam Samba Yàlla am fa Modou Binta Faati Fall ak Mayara Faati Fall ak aada faati faal ak aminte loo ngoti kon loolu jëkk nañ ci comme boo demee ci mbar ko yàlla moomet moo jur binta faal ak moor antañaan ak yàlla ak kuma ñuul ak madu aram ge mi nga xam moo jur mamma fa baraan mii jur sëñ ndaam loo mi nga xam ne ba tey kon ci madu aram ñooñi ci cee euh, mel na ni kon kuma ñuul moo demoon kër Mayib Awa Balla am fa Awa Balla ku mu ñuul Samba Yàlla ak aw Awa Balla ku mu ñuul ak Assa Ndiaye ak Samba Yàlla ñoom ñoo bokk ndey ak baay Awa Balla moo dem kër maam Thierno borom daaru am fa sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Cheikh Awa Balla ak soxna Faati Mbàkke Awa Balla ak sëñ Ndëkk Ñang mi nga xam ne ñoo bokk benn waay jur jigéen te bokkuñu bàyyi waaye soxna Faati Mbàkke Awa Balla moom lañ jox sëñ Amsatu Jaxate moom fa soxna say jaxate soxna abi jaxate soxna say jaxate ñu joxoon ko sëñ soxay bu mu mbàkke moom ci sëñ seex say mi di xalifaam kon lii ko boole ci diggante doomu ndey boobu ci Mamadou Binta kon mel na ni kon euh, euh, bu fekkee amaan na benn buntu boo xam ne dañ ciy dugg ndax fi loolu waxtaani moom mel na ni ma ko waxoon léegi kon xam na ni Mamadou Binta moom it Binta Fall mi ko jur xam nga Siré moom bokkal ndey ak baay moo jur Mor Fatma boo sànci ndaam kër Giri Mor Fatma moo jur Giri àll ak Maam Sarr Maam Sarr moo demoon Thiarène am euh, Maram Sarr Maram Sarr moo demoon Cissé ñi sant Cissé am fa Khoudia Cissé ak Khali Cissé Khoudia Cissé Mohamed moo jur Moustapha Khoudia Cissé bu kokki waaye Khali Cissé moo dem kër Mama Jaxate Mariama Mohamed am fa Ablaye Xari Cissé ak Cheikh Xari Cissé ak soxna Fatma Seylo mi nga xam ne ba tey moo ñëwal kër maam moo yor a Faati Fall am ca Alaaji Fatma Sey ak sëñ Mor Lo ak ak sëñ Daam ak Caara moo yor ak ak Marème nga xam ne kon mbokk googu noonu la demee kon ñooñet ñoo ñi ma waxoon rek amoor sax bàcc ak amit ñoo bokk benn baay mel na ni kon euh, mbokk gi mi ne ma ne ko waxee woon rek temps duñ ko may xam naa ni moom euh, ndax jataay bi wax dëgg dafa xaw a yàgg waaye kon mën nañ ci andi lu gën a yaatu ndax waxtaan mbokk nak moom dafa xaw a jafe lool ndax moom euh, doo mën a dajal <laughs> waaye nag comme naa ne sëñ li sëñ Seex Lo moom xëy na mu jëlaat ci kàddu ñu xool baax rek aousu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ak yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen nuyu fii ci Louga quartier Kër Mamadou Binta mel na ne ñu ngi ci cëppaandal ndaw li cëppaandalal waxtu wi tey jii yamook samedi le 6 avril 2019 ñu nekkoon fii ci kër Madou Binta de bis boo xam ne ni diñ fi doon daje ngir di ñaanal sunu wayjur yi nga xam ne moo meññi njaboot gi te it ka nekkoon ci boppam njaboot gi mu di Alaaji du Bintaloo ak njabootum gu barkeel gi nga xam ne moom la ko suñu borom boole loon waaye nag Euh, ñu doon dundal itam bokk gi nga xam ne moom lañu yàlla boole te muy ñaari mbir yoo xam ni benn bu ci nekk jar na di daje ndax bu ci nekk suñ borom moo ko santaane ci alxuraan digg ci ki nga xam ne daf koy def waaye tëkku ki nga xam ne itam du ko def mel na nag bis bi euh, mi ngi ci cat li biñ xëyee liñ ko doore muy njàngum alxuraan ndax yaakaar naa ko wax alaaji Mouhamadou Bintaloo walla nga wax njabootug maam Mamadou Bintaloo da nga xam ne sëriñi daara lañ woon ndax kër Madou Binta këru daara la ba fii ñuy wax ak yéen itam këru daara la te barab bii nga xam ne fi lañ nekk dafi defe ndaje mi feeñ na ci ndax barab bii mooy barab bi nga xam ne njabootu Mamadou Binta ñoo ko wut def ko daara def ko muy waqfullaahi muy barab boo xam ne nii kenn moomu ko kenn du ko donn waaye jullit yëpp ñoo ko bokk rawatina nag njabootu Mamadou Binta biñ xëyee nag bis bi ñu ngi ko doore njàngum alxuraan ndax xam nañ ne kuy ñaanal Mamadou Binta di ñaanal njabootu Mamadou Binta waaye di ñaanal jullit yëpp la nga cee jiital mooy alxuraan jàng nañ alxuraan def ay dog def ay istixfaar ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu jotal yool bi ci njabootu Mamadou Binta waaye bañ noppee itam bokk yëpp yëpp daje nañ bu ñëpp mënta daje itam li ëpp ci bokk yi daje nañ waxtaane bokk gi nga xam ne moom lañu suñ borom boole borom mi xam-xam euh, seqoon ko ñëpp itam di sëti Mamadou Binta loolu itam muy lu mat a sant yàlla ndax euh, jàpp naa ne mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon amal waxtaan wi ñoom ñëpp njabootu maam Madu Binta la lañ te mboolem liñ fa doon wax ci liñ fa doon wax lépp ci alxuraan lañ ko tënk waaye ci xam-xam lañ ko tënk waaye ay ahadis lañ ko tënk loolu muy lu mat a sant yàlla ànd kook itam bokk yi ak kilifa yi te buñ ci tuddee Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Ali yi di doomi Mamadou Binta ndax kenn ku ci xam na ne soxna Fadloo mi ko jur soxna loo kenn ku xam na ne sa tub Mamadou Binta loola Euh, ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo sëtoo ci Mamadou Bintaloo euh, waaye ak bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Njaamoor nga xam ne dañoo bokkoon ak Mamadou Bintaloo démb tey ji door a ñëw bokk yëpp ñoom ñëpp xam ne lii day lu mat lu am solo soññee nañ itam ci daara ji nga xam ne moo nekk fii ci euh, kër Mamadou Binta muy daara joo xam ne ni daara cosaan la ndax kenn ku ci xam ne ne Mamadou Binta bi mu sancee fii ci quartier Kër Madou Binta lam ko sancoon mooy taalub jàngu di fi jàng alxuraan di fi jàngale ba mboolem njabootam gi nga xam ñoom ñëpp ñoo ko donn ki nga xam ne moo ci gënoon a fés mu di maam Mor Anta Ñaan euh, moom itam mu ñëwoon jël daara ji dekkal ko yeesalaat ko bi mu fi jógee itam mu jël daara jox ko maam aale loo maam yitam itam taxawoon ci taxawaay bu ràññiku jàngal boroomi xam-xam yu rafet yoo xam ne nii fu ñu leen tudde ci biir réew mi ñu xam ko ñooñu dana ci doy sëkk ñu tudd ci Serigne Ahmadou Sakhir nga xam ne fii ci daara yi maam aale loo ci kër Madou Binta fi la jànge alxuraan daara ji itam njaboot gi waxtaan nañ ci kenn ku ci nekk euh, génne xalaat yi nga xam ne moom nga ci am waaye kenn ku ci nekk itam génn li nga xam ne moom nga ci am ndax kenn ku ci xam na ne fii ci lu mat ci ñaari at ci ginnaaw ci lañ ko ci lañ tegoon xeer yu waaye lii ren lañ ko fi door a def ndax ren lañ fi door a daje gis ngeen bu ngeen xoolee ci benn ci ñaari côté yi dañ ko clôturer am itam ay néssari yoo xam dañ ko fay def bëgg fee def mbaar mu mag moo xam ne nii mbaarum jàngu lay doon bëgg fee def ay dëkkuwaay bëgg bëgg fay def ay waajuwaay loolu nag kenn ku ci nekk xam na ne ay koppar moo koy def loolu itam tax na njabootu moo Binta gépp jël nañ seen yitte jëpp def ko ci daara ji num num num num num num num antoo ak num sottee Euh, bi ñu demee ba julli tisbaar ba noppi itam li desoon ci waxtaan wi àggale nañ ko bu ñu noppee itam ñu xéewlu bokk yi itam euh, dajawaat euh, ñu gën a saafonte ñu joxe war rendez-vous ba 2020 incha allah rabbi loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne moo amoon fii ci Louga ci quartier Kër Madou Binta ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu bon defal ñu tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu allahu hasbi li diini hasbi allahu